li ñu war a def pour am suñu souveraineté est que pare nañ ko loolu dafa laaj nag ñu bàyyi gis-gisu jooni jooni jooni jooni baaxul réew dañ koy tabax méthodiquement brique après brique dañ koy tabax ci effort ak sacrifice ñun am nañu possibilité financer suñu boppa est-ce que xam ngeen loolu dinañu proposer sénégalais yi gannaaw asa euh, élection législative yi nañ leen proposer des leviers endogènes de financement daal di andi des modèles de financement innovants lu mel nii lancé am nañu ko tuddee woon diaspora bond may profito bi féliciter la diaspora sénégalaise ci seen taxawaay ak seen xeex ñoom it kenn demul ñu des waaye la ñuy waajal buñ koy sànni duñ ko tuddee diaspora bond patriote bond lañ koy tuddee parce que li xew fii tey rek wane nañu waa réew mi seen bopp ñi ne fii ci biir réew mi kenn amul ëpp leen capacité de mobilisation kenn am ëppalewu leen capacité war làmb dara seen poos pour dugal ko ci loo xam ne njëriñu ñëpp la léegi dañ ma ne xayma bu njëkk bi ñu def rek nee nañu levé nañu déjà lu mat 500 millions te mbir yaa ngi continuer di dugg ngàcce gaalaama Pastef dama ne kuy tibb tànk way wala ngay marquage culotte rek defal ñu gis loolu mooy nit nit bu dee danga koo fan ba tax nga ne lu mu def ma def ko bu wootee arena Dakar arena xanaa kay suñ tegee ñetti fan nga woote Dakar arena bu levee 500 millions xanaa kay nga góor góorgóorlu ne man sax levé naa 50 000 ma wàññil leen ko rek moo tax li ma bëgg ñu jàpp tey mooy nous avons notre destin en main nañu gëm suñu bopp dinañu def les réformes qu'il après. élection législative bi dinañu def les réformes fiscales qu'il faut parce que réew xam ngeen lu ko yor réew l'impôt moo yor réew dama bëgg Sénégal yëpp xam ko la ngay dem lebi ji ci biti l'impôt la rek boo xam ne danga ko koo décalé parce que l'impôt bi ngay fayeku ëllëg moom mooy dem fay ji loolu kon nañ def les réformes fiscales qu'il faut gi ma gëm mooy l'impôt goo xam ne dañu koy wàññi ba mu yemamaay waaye ñëpp daje fay ko loolu mooy lémp gu baax ndax pare ngeen ci loolo kon nañu gëm ni ñun nous avons notre destin en yeneen réew yi li ñu def ak fi ñu jaar ba yegg fi ñu yegg buñ ko defee raw leen bokk na suñu koom-koom yi nga xam ne yàlla may nañu ko muy pétrole muy gaz muy zircon muy jën gi nekk ci géej gi yooyu yépp dañ leen diggoon yi dinañ ko renégocier ñëpp ne mënuñu ko renégocier taxawal nañu commission yi liggéey baa ngi continuer te ni ma leen ko waxee woon laa leen koy delloosil incha allah nañ ko doon am benn dinañ fa am juróom. lenn laa bëgg ngeen xam engagement bu ñu mus jël avec le peuple sénégalais bu soobee yàlla dinañ ko respecter am na lu ñuy respecter tey am na lu ñuy respecter dans une semaine. am na ñuy respecté dans quatre ans waaye ci juróomi at yii li ñu waxante woon ak yéen nañ ko def dañ ko def ba mu mat sëkk loolu na dal seen xel moo tax nag ñetteel poñ bi ma bëgg a wax mooy li ñuy dëgmal parce que ñun dama yàgg wax ni gis nga ku yàlla dénk nguur sa adversaire du opposition bi sa adversaire du opposition bi bul sonal sa bopp ci opposition bi réew mi boo liggéey li nga war a liggéey teg ko ci jub ak jubal ak jubbanti boo ne woon damay bàyyi sax askan wi moo la naan duñ la bàyyi nga dem toog kon ñiy opposé nañ leen bàyyi ñu wax parce que loolu moo leen dese waaye sénégalais yeewu nañ de ku yaakaar ni wax wax wax suba ak ngoon mooy tax nga wëlbati sénégalais yi te ñaari ba ñetti cible la ñu am. cible bu njëkk bi mooy jeunesse bi yéen jeunesse bi politiciens yi gëm nañ ni mën nañ fexe ba wëlbati leen féewale leen ak Pastef ak président Ousmane Sonko ak président Diomaye ci bëgg leen gëmloo ni ci bëgg leen gëmloo ni yéen a fi newoon di xeex yéen a ngi ni amul leen liggéey ñun suñu contrat mosul nekk contrat wu kaa lañ jël réew mi paccoo ko kenn ku ne ci yéen bu amee profil bi mu war a am saa su ko réew mi soxlawee dinañ ko woo nekkookaay ko kaay dénk nañ la lii waaye nañu jàpp lenn jëriñ réew mi tekkiwul nekk foog tànk aw ma ñu ne ma nome nañ ma wala recruté nañ ma waruma mën a jëriñ réew mi loolu bokkul ak esprit Pastef kon la ñu déglanteeg yéen ñoo nga ci suba ngoon te résultat yi ala kulli xaal nañu dox quelque semaine quelque mois parce que bi ñu nee Sénégal vision 2050 gis naa ay politiciens yoo xam ne yàlla nattu na leen mënuñu wax ba sénégalais yi déglu leen loolu nag di suñu fóot ñun la ñu bëgg a gëmloo sénégalais mooy ah joomaay de nee na na ngeen muñ ba 2050 ngeen di doog a gis dara musuñoo wax loolu kër boo ko buggee tabax da ngay defar plan ñu defar la plan bu rafet R plus cinq waaye est-ce que da ngay xëy premier jour bi rek am cinq étages da ngay commencer ci fondation chaîner teg brique chaîner et ainsi de suite soo paree nga dem ci finition bi seconde œuvre bi di jënd meuble yi monter carreaux yi monter sanitaire bi projet boobu lañ leen tegal étape bu ne étape bu ne étape bu ñu toll dingeen gisal seen bopp meññ bi ñu ne lii moo meññ ren nañ ko séddale séddale bu yemamaay séddale bu maandu kenn ku ne jël ci sa wàll ñu continuer liggéey bi ba am liy meññ année prochaine loolu la ñu waxanteeg yéen. moo tax euh, gëm naa ni dañuy sonal seen bopp rek waaye mu ñëw ñeneen ñi ñuy ciblé. mooy liggéeykat yenn liggéeykat yi jakartamaan yi marchand ambulant yi nga xam ni bu ñu nekkee ci situation bi ñu nekk échec yi ñu échec ñoom ay ati ati at moo tax lii am ñu ne nag ñu ngi leen di tegal loo xam ne dinañ teggi ndànk-ndànk ba la bëgg ci Sénégal parce que jeunesse bi moom la ñuy wooyee dividende démographique lii du nattu ci ñun c'est un nattu atu boobu nag lañu ñu bëgg a utiliser de manière efficiente muy atu buy tabax réew mi ñun loolu lañu mooy suñu gis-gis ci jeunes yi waaye jàpp nañu jeunes yi lu ñuy utiliser la soo paree nga sànni ko moo tax élection bi ñu jëm élection bu am solo la nañu jàpp ni c'est l'élection la plus importante pour stabiliser le pouvoir qu'on a confié au président Diomaye mën koo jox les outils pour mu def liggéey bi mu war a def moo tax élection bu am solo la lañ ca fas yéene def nag lañ ca fas yéene def nag loolu waral meeting bi ñu daje tey